jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci terrain gaal gi ki ñu fi woo di promoteur bu mag bi Jax production moo ñu fi woo li traditionnel xale yaa ngi dugg si waaye ndaanaan yaa ngi dugg si mu ciy décorer kenn wala mu ciy delloo njukkal koo xamante ni kenn la ci làmb muy ŋaal Malick Ngom Malick Ngom ku ko xam-xam ko ci arbitre Malick Ngom ci ñi ko fàtte keroog ba yiki ba ëmma seen doon bëre kii di Modou Lo stade Léopold Sédar bi ko Eumeu Sène dóoree mu daanu arbitre bi dawoon yàbbi protestant bi kooku mooy Malick Ngom kooku la ñuy sargal tey ci journée Diaks production Adama ñu dugg ci biir xool ndaanaan yi ni ñuy dugg see ñu dugg ci biir xool gars yi ni ñuy ñëwee ci làmb ji ak wasaare làmb dana neex dina yëngu Adama kaay let's gi noo tudd. maa ngi tudd 26 Lass Demba Ndione. 26 Lass 26 Lass Demba maa ngi lay fay. tey promoteur di delloo njukkal Malick ban yëg-yëg nga ci am. waaw euh, kontaan nañu lool nag. waaw parce que bu décorer Malick rek ça veut dire na arbitre yëpp ak arbitre Sénégal Ndiaye donc euh, ñu ngi ko ci gërëm bu baax waaw ñu ko ci gërëm nok dëgg-dëgg kontaan nañu. moo tax boo xoolee tey délégation bi riche nii waaw te ku nekk tey damay arbitré moo tax ma mel nii quoi waaw ma mais maa ngi tooñ ne ma dama waroon bàyyi ma ma daraasu xam nga fecc fi fecc yi waaw mais gars yi je crois que gars yi dinañ fecc fecc yi métti tey waaw mais nag Nel Jax amuñu fayam te gis nañu saa yu arbitre wootee rek moom da ci dugal loxom waaw dëgg dëgg loolu moom il fallait ñu wax ko pour ñëpp xam ko saa yu arbitre wootee ci lépp nag ci social ci lépp moom la ci dugal loxom moo tax lu mu def tey fi lii betuñu dëgg-dëgg betuñu nag waaw te ñu koy gërëm bu baax na ko yàlla may wërgu yaram parce que boo amee wërgu yaram rek li ci des yëpp police la waaw mu taxaw mu taxaw mu taxawal njabootam dëgg-dëgg. waaw olof bi nag xawul set tuuti waaw xam nga séeréer bi moom da ngay waar. dëkk bi toj. déedéet waay <laughs> merci. <laughs> <laughs> waaw ñu ngi tamit ñu ngi gërëm tamit xam naa dana ñëw suñu président yi si toor xam naa dinañ ñëw. waaw ak euh, Babacar ñooñu waaw dëgg dëgg xam naa tey moom tamit bu ngeen tamit ñaan jax mu defa ñu une minute de silence pour suñu papa ji dem waaw ñoo pa ñoxor Diouf tey moom bu ñu ko mënee tey dañu kontaan tamit. dina am incha waaw ah, merci beaucoup merci. waaw na leen yàlla nag taxaw yéen. waaw télé yu bees yi. waaw li nga li bëgg rek yàlla may leen ko waaw merci beaucoup. soxna si naa la ku baax. maa ngi tudd Agathe Teneng Diouf bokk si groupe bi maay seen jigéen maay seen arbitre bu jigéen. keroog maa lay gis ma naan ah góor baax na jigéen baax na léegi arbitre yi jigéen ñi sax ñu ngi ci biir. waaw macha allah gis nga donc métier bi bàyyiwuñ ko kenn góor mën na see nekk jigéen mën na see nekk parce loo gis léegi dañ koy jàng rek du ko da ngay tëb nii rek di ko def mais da nga koy jàng tamit ba tax tamit te ñoom tamit ay góor ñu baax lañ. bàyyiwul ma benn yoon même keneen ki fi nekkul sax bàyyiwuñu benn yoon boo dugul sax dañ lay woo di la conseiller des choses du genre donc euh, amuñu seen fay quoi ay góor ñu baax lañ. ci biir làmb da ngay gis jigéen yuy reporter làmb léegi ñu gis arbitre buy reporter buy buy arbitrer làmb est-ce que yomb na ci mbër yi nga xamante ne duñ nangu jigéen di leen laal ngay arbitrer seen combat. waaw mais Fall yombul yombul mais sant yàlla. tout temps moom dañ ciy génn parfois nag du ñàkk nga am ci ay jafe-jafe mais yàlla baax na quoi ñoo ngi ciy berwaar bu baax a baax dóor xàccandoo dóorandoo ñun ñëpp donc man góor ñi ñooy samay idole damay naan ñoom bu ñu duggee réussir rek man dama war a dugg réussir ba ne installé waaw ah, donc euh, chapeau à jigéen ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy def reportage làmb parce que ñoom tamit ay jàmbaar lañ métier bi neexul benn yoon donc jigéen bu ci yëngu rek dañ la war a féliciter te gën laa encourager nga gën a góorgóorlu tamit lutte avec frappe bi bu baax yàgg naa ci waaw. Euh, yan combat bi ma mujjee officier muy bi nekkoon arène national bu Doudou ñoom euh, bu ñoom Doudou Sané donc euh, y a deux semaines de cela donc ak fils de Zallo ak beneen mbër bi tamit combat dernier combat bi combat bu mag bi maa ko officier wu. amit lu leer nañ lañ ci am amul jiixi jaaxa amul dara sant yàlla daal. tey Jackson di leen delloo njukkal yéen arbitre yi ndax yaakaar naa ku delloo njukkal Malick yéen ñëpp la delloo njukkal ban yëg-yëg nga ci am. en tout cas am nañ ci kontante bu mag a mag parce que tamit Jackson moom maa ko maa ko tuddee dès maintenant le roi des promoteurs parce que tamit ñun ku ñu yëg rek ñu yëg la te Jackson tamit ni ko sama confrère bi waxee. moom tout le temps ci luñ nekk rek da ciy dugal loxoom côté social yeneen ak yeneen kon tey jii Jackson liñ koy ñaanal réussite totale. Ah, saawaan bu baawaan ci biir njabootam en tout cas ñoo ngi ko ciy gërëm di ko sant bu baax a baax te na nag xoolal ndam rek la ciy am ca kaw ca kanam arbitre moom ku leen sargal ñu sargal la yàlla sargal la tamit waaw. Ah. merci beaucoup sama. tey de sa waa ji fi sëñ Basirou waaye daa mel ni yaa ngi fi. ndeysaan kilifa gi noo tudd. waaw man Matar Diouf laa tudd. Matar Diouf Matar waaw. lan nga ci ci ci Basirou Diouf borom wasaare. waaw Basirou moom sama rakk la. Basirou Diouf Matar Diouf ñu bokk Diourbel te ay parent yu jege waaw muy sama rakk boo xam ne wax dëgg yàlla ku baax la daal maa ngi koy ñaanal ak waa wasaare gi yëpp fépp fu ñu bëgg a eggale seen site bi rek yàlla na dem ba kawe seen jot bi jaay Rasulullah jërëjëf. maanaam tey ñu leen di delloo njukkal yéen arbitre yi ban yëg-yëg nga ci am. waa xanaa di am contentement bu baax a baax a baax a baax ndax li olof Njaay di wax rek nee na askan boo ci toroxalee kenn toroxal nga ñëpp waaye boo ci teralee kenn teral nga askan gépp kon tey Malick dafa doon kenn ci ñun nekk arbitre boo xamante ne vraiment infatigablement lañu koy wooye parce que chaque jour day def lu mu mën ak lu mu mënut pour rek avancement am ci wàllu CCA. kon tey buñ boo ko jag si di sargal ñun dañ ciy am contentement trop pour teewal ko gunge ko ci bësam bi. Mhm. ñu lay jaajëf. waaw jaajëf kontaan naa ci yéen. kilifa gi tur la. ah maam Kor Faye laa tudd. tey ñuy déco décorer ci ci làmb ban yëg-yëg nga ci am en tant que. Ah, am nañ kontaante bu baax a baax a baax baax parce que Malick daana xele boo xam ne xele bu nangu la te daa mun liggéey te mu ngi topp liggéeyam dégg nga dégg ah mënuñu wax nag parce que président yi ñëwul wante su ñëwee da nga dégg dégg da nga dégg wax bu dey waaw jërëjëf maa lay ah, njukkal bu baax a baax a baax waaw jërëjëf. kilifa gi tur naan la. mbay Sarr. maay Sarr yow moom xàmmee nañ la ci arbitre yi kenn du la nataal mais tey moom def nga ba bu baax blouson bi àll ba. waaw blouson bi non nii laa def quoi parce que bésu Malick la quoi Malick la ñu honoré tey bon mel na ne arbitre yëpp la ñu honoré quoi bon li ñuy def rek mooy vraiment di remercier Jax si action bu mu def def koy def toujours nag quoi bu ñu amee événement wala social yu ñu war a def def si dugal loxoom. donc di ñaan rek bés bi réussir si jàmm quoi tey moom blouson bi ñëwul Malick moo xewle moo tax ñu def yére olof quoi. nga jàppale ko daal di ko sotal. waaw vraiment vraiment waaw kontaan rek vraiment kontaan bu baax baax koi si defal Malick ban yëg-yëg nga ci am. non du kontaan contentement rek franchement kontaan na trop. waaw vraiment comme ñëpp parce que Malick bon bés bi moom jomb ko quoi vraiment il il le mérite franchement ak lu mu def si làmb yëpp. mérité na lii vraiment di ko félicité rek quoi vraiment encore une fois di ko félicité quoi vraiment waaw. jërëjëf ok merci beaucoup. ña ngay bindu table baa nga noonu gis nga jox nañ ko numéro am boo joxee sa licence da ngay joxe licence bi dindi joxe ñu bind tur bi enregistré teg licence bi fële nga dugg ci compétition bi gis nga jël na benn numéro numéro ba muy jël. moom la ñuy taf ci licence bi aadama bind turam enregistré jox mbër mi reçu bi mu dem ci numéro boobu lañ koy woowee waaw waaw Adama noonu la demee. <laughs> Malick Malick tey wax kilifa gi maa lay nuyu. ñu ngi lay fay. tribunal la Omar Senghor. Omar Senghor. Mhm. Omar tey di décorer Malick Ngom en tant que arbitre ban yëg-yëg nga ci am. alhamdulilah xanaa sant yàlla dëgg lañ ko def. parce que Malick yàgg na ci yëf yi vraiment xale bu yaru la mérité na lu ëpp lii dëgg-dëgg kon am ci kontaan dëgg-dëgg te jàng encore ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que vraiment mu ngi xam ak ñi nga xam ne ñoom la fi nekkal vraiment Malick daal nit ku baax la ku jub la ku yaru la te fonk na liggéeyam loolu lañ ko xamee dëgg-dëgg incha allah jërëjëf ñu ngi kontaan ci yéen. kilifa gaa ngi bind. kii mooy Malick. ci ñi ko xamul bis bi Modou loo doon bëreeg Eumeu Sène bi ñu dooree Eumeu Sène mu daanu moom moo ko yàbbiloon protestant bi askan bi yëpp kontaan ci loolu am yëg-yëg ci moom cofeel gi réew mi am ci moom rawatina bëgg gi mu bëgg liggéeyam ak maîtriser gi mu maîtriser liggéeyam tey Jax bu ko delloo njukkal décollé na njukkal képp koo xamante ne bokk nga ci làmb Malick maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di nuyu waa wasaare làmb yëpp euh, di leen jaajëfal ci seen teewaay ci bés bi. parce que yéen aussi yéen a ngi dox jéego ci làmb ji ma leen di féliciter di leen encourager. sa diggante yaa Jax lan la. ba mu décorer la defal la bis bu mel ni bon diggante làmb la rek ñun ñëpp ñu bokk moon bi muy diggante promoteur ak arbitre diggante promoteur ak amateur diggante journaliste sportif ak presque làmb ji daal ñun ñëpp ñoo ko bokk xëy na dafa seetlu am li tax mu def ko xëy na moo ko tax moo ko xam. donc mais dafa mel ni même bu ko defee ci sama tour ci turu arbitre yëpp la ko def donc ci li ma doon yëngatu lañ ci ràññee jaarale ko ci man mais ci turu ñëpp la parce que yow kese mënoo arbitre lu leer am na ñooy àndal mën na am sax li ngay joxe ñoom ñoo koy gis wax la ko donc buñ ko defee ci sama tour rek da ci utiliser sama tur rek mais pour tour ñëpp la muy commission centrale des arbitres ñu ko ci remercier bu baax. moo waral nga gis gars yi ñu def ni ñuy def nii pour pour marquer bés bi. xàmmee ma leen tey blouson yi gisatuma ko fenn. mais ñoom ñëpp a ngi fi. kële nga romb ne le moo arbitré woon Yékini bi muy daanu ga euh, Balla Gaye donc ñi pour combat yu mag yi ngay gis yëpp ñii la am na ñeneen ñoo xam ne yegg seegu ñu ngi ci yoon wi euh, mais ci liggéey bi la rek vraiment ñu kontaan ci trop di remercier Jax bu baax a baax. Hmm. la première fois ñu lay décorer ci làmb. bon c'est pas la première fois c'est pas la première fois. Euh, mais it c'est pas je ne suis pas le premier aussi nekkuma ki ñu njëkk a décoré ci làmb parce que Jax décoré na avant man décoré na fi Sitor Ndour président arbitre décoré na fi aussi Babacar Diop euh, décoré na fi ndem si yàlla ñoxor ñu koy ñaanal suuf sedd ci kawam euh, donc dul guleet daal pour moom donc dafa nekk koo xam ne xëy na fi nit ñi di xool moom day xool feneen xëy na am na côté boo xam ne eh, ñen ñi côté bu négatif bu arbitre bi la ñuy gis dafa juum te arbitre nit la donc nit ku dul juum amul ndegem nit ku dul juum amul nag ñu mun ñuy baal xëy na yenn yoo xam ne boo di ci suñ teyeef mais buñ sañoon ku arbitre rek ci yoon nga koy teg donc bu ñëwee xool ne vraiment ñii à part li ñuy xalaat ne baaxul am na leneen lu ñuy def mu sargal ñu vraiment dañ ciy kontaan bu baax a baax. jaajëfal bu baax a baax ñun aussi ñu ngi leen di gërëm di gërëm Jax vraiment suñ xool dafa fees on est très content ay banderole yële ngay gis ay association au séeréer refum ñoom ci lamb rek la ñuy yëngatu def surprise ñëw def banderole ci marqué pour jour sargal bi donc loolu yëpp ñu leen di remercier ak ñëpp ñu fi teew vraiment kontaan nañ trop merci. kilifa gi tur bi la. man Tidiane Ndiaye laa tudd. tey ñuy décorer sa confrère ban yëg-yëg nga am. waaw non kontaan rek comme ni ko ñëpp waxee ah vraiment Malick nekku fi arbitre bu fi njëkk te itam nekku ku fi mujj quoi. ñëw na comme ni doon décorer arbitre yëpp te yàlla def ñu décorer ko peut-être marqué marqué itam son empreinte bi mu ñëwee ba léegi dox ci ay jéego itam comme je me dis que ne du mérite chance am moo ñëw vraiment mu nekk loo xam ne itam ñun ñëpp en tant que arbitre dañ koy rafetlu daal waaw. ñu lay jaajëfal. merci beaucoup merci. kii de moo yor table bi moom ma ngay bind de. kilifa gi maa lay nuyu tur bi nan la. man Modou Mbaye laa tudd waaw. yaa yor table bi di bind. waaw no non non bokkul ak Modou Mbaye 2 mais sama copain la. parce que dëgg na ñaari Modou Modou Modou pousse pousse wala Modou Mbaye 2S TV. Modou Mbaye Modou Mbaye sama waay la non Modou Mbaye du Modou Mbaye pousse pousse de. Ah. Modou Mbaye boobu moom sama waay la quoi doom père Bakaay. waaw non xam naa Malick moom suñu waay la. waaw ñu bokk métier mu nekk loo xam te ne si nii euh, ku ku ku dëggu la. véridique parce que damay am loo xam te dama koy fàttaliku ci moom te yaakaar naa loolu dem na ay deux wala trois ans mooy boo naree nekk ci ko ci ci ci arbitrage te doo juum doomu yaa nga jóge ci arbitrage kon kuy wax loolu xam na ni xëy na peut-être un jour ou l'autre di nga mës a juume ci mais bu juumee aussi du nekk loo xamante ne si ni ci tayefam lay nekk du nekk ci tayefam parce que nit moom quand tu es véridique rek. Euh, euh, say décision ak mm, say li nga xamante ne noonu ngay doxalee dañ koy xool ci ay comportement yeeg ak ni ngay def ak nit ñi je pense que ne nag loolu moo waral lii lépp quoi. parce que nit la koo xamante ne si wax dëgg yàlla ni nga ko gisee noonu la mel muy mbër yi muy mm, promoteur yi muy moroomu arbitre yi muy fi nga xamante ne si foofu lay jàngale également ay relation yu seen la am ak ñooñ donc kooku moom wax dëgg yàlla dañ naan gàcce ngalaamaa Jax bu ko defee au nom de Malick ñun ñëpp dañ ci gis suñu bopp très sincèrement ñi nga gis ñëpp c'est des arbitres aujourd'hui ñii ñëpp moo tax dañ doon kaf léegi naan pourquoi promoteurs yi ñu woon na arbitrer ñun arbitres ñu dem toog nee ca wet ga voilà très sincèrement ñu xool nag difficulté yi nga xam te ne si ni ñoom la ñuy jafantoo. ñu sànni arbitre xeer ñu dem xool ne arbitre di mos. voilà ñu xam ne arbitre au chaud la ñuy jël la ñuy jël décision yi bu fekkoon dañuy dem toog seen kër xool film yeeg ay def yooyu je pense que kenn du def waaw ñu ngi ñaan nag yàlla xëy na peut-être dinañ dem ba nga xamante ni si nii comme au football ni muy amee ñu am VAR bu amee kii ñu ñëw walla ñu yëg si def VAR bi jël décision bi ci war nga xam te ne si nii day nekk loo xam te ne si nii daal ñëpp nañ ci kontaan. wax dëgg yàlla ci mais daa mel ni gisaguñu ko ci lutte avec frappe lu muy day ñëw day ñëw xam nga lutte avec frappe moom pratiquement ci Sénégal gi yëpp la xam nga booy appliquer une chose nag da nga koy appliquer sur le territoire national doo ko jël rek daal di ko yemale benn secteur ne Dakar rek la yem. war nga ko appliquer Mbour Thiès Dagana war ngaa dem ba sax ba foog nga limi ña fa euh, lutte am nga appliquer ko foofu noonu je pense que ni nag yàlla yàlla yàlla daal noppi na ba pare nañ ñaan nañ ñaan rek mu ñëw. laaj matuwaay yu ay moyens yu yu bëree bëree bëree bëri je pense que à travers li nga xamante ne si nii moom la jag si def euh, ñeneen ak ñeneen dina ñëw wàll si ci quoi. ñu ñaan nag sponsor yi nga xam te ne si ni ñoo ci nekk ñu jàpp ci bu baax a baax a baax xam ne daal lii suñu sport la kaf ak ree la gañe ak euh, perte moo fi am mais ku gagné comme le disait l'autre laa ñu xam ne daal kooku la yàlla may ndam wax dëgg yàlla. ñu lay jaajëfal jaajëfate <laughs> ok. Malick Ngom arbitre la ndeysaan tey jag sa koy décorer ci bis ba ànd naag ay xaritam ay am di jàmmam ànd naa ñëpp ndeysaan ma nga noonu ndeysaan amateur yaa ngi koy tàccu amateur yaa ngi koy tàccu On fait le tour, on fait

koy félicité yaa ngi koy tàcc moom Malick Ngom ndeysaan ma nga noonu ndeysaan ndeysaan Malick Malick ñii ñooy ñan. ñii waaye au séeréer refum ñoo def banderole bële nga gis ñaaxaar lañ fa naan après def délégation ñoom ñëpp ñëw vraiment kaay leen Yves ngarit yo ngaritu kaay leen kaay ah, ngarit ah, ah, ah donc vraiment ñoom ñaaxaar lañ jógee sonn ci trop man dama rus sax bi ma leen gisee te lii gisuma koon fii laa ka gisee vraiment kontaan président baa ngi nii donc ñoom ñëpp la teewal ñoo eh, eh, eh, waaw vraiment kontaan nañ trop mooy président Mahfouz ci association séeréer ref. président noo def. maa ngi fi rek maa ngi ci jàpp. yëg-yëg yëg-yëg ban yëg nga am. waa tey moom séeréer ref mu am nañu yëg-yëg xol bu sedd guy. tey moom kontaan nañ trop euh, ci programme bi xew tey Malick Ngom di grand arbitre bi nga xamante ne moom la séeréer yi am dëgg dëgg neex yàlla ñu koy sargal mënuñu lu dul ñëw teewal ko. en même temps si ñu bokk benn association bu tudd séeréer refum ñu bokkoon ñu ñëpp Malick bokk ci. di yokk suñu xam-xam di yokk suñu xalaat ñun aussi ñu sottante ay xalaat mu ñuy régler situation yu bëri ci làmb ji loolu la quoi moo tax mu xew la ñëw teew waaw. jaajëf ok ndeysaan boo xoolee malik nga xam ne am na kontaan am na mbégte boo xoolee malik xam ne làmb doolay làmb kontaan gi mu am boo ko xoolee ci kanam xam ne xool sedd na làmb ngoog ndeysaan biram kukku gi loolu caaka fay ñu kay koy jaajëfal ndeysaan ñu ngi koy décorer ndeysaan ñëpp a kontaan ci moom moo lay wan baax rek am solo liggéey laa seq ak mbëri waaye aw ma ci xaaj ak seen mbër yëpp ay xaritam lañ loolu liggéey bu rafet ko mën ndeysaan ndeysaan mbër yaa ngay ñëw di ko félicité oh rafet la Adama lii rafet na ndeysaan rafet na mbër yi kontaan nañ ndeysaan bu rafet bu mu liggéey nga bind recours yóbbu CNG ñu nangu ni arbitre bi dafa juum jox la yow victoire ñii ay nit lañ rek waaye ci société bi lañu bokk ñu ngi noonu tey boo leen xoolee xam ni union fait la force làmba ngi noonu cey làmb ah jugu arbitre gi ay ndeysaan ndeysaan ndeysaan mbër siif na ndeysaan ah, waaw ngi noonu ñoo arbitré bés ba Gris Bordeaux doon dajeeg Mouhamed Ndao Tyson ñoo ngi noonu bis ba Gris Bordeaux di dajeeg Bombardier ñoo arbitré ba Bombardier di dajeeg Modou Lo ñoo arbitré ba Bombardier di dajeeg ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 ndeysaan jug na waaw waaw a ngay jaayu <laughs> tey làmb làmb daa lay làmb rëpp ndeysaan xoolal lañ ko décoré Malick Ngom ngi noonu ñu jël photom di ko jox xol bi tooy na ndeysaan Malick Ngom ngi noonu arbitre yëpp nga mànkoo ndeysaan ndeysaan jóg na ndeysaan duudoo ko ko jox borom jilaas production suma ngi noonu boom sum production cey làmb ku ne jox na ko ko ndaysaan duudu nag dama xamul da koo jox ndaysaan ndaysaan suñu papa Thierno Ka ma nga noonu ak waa CNG bi ndaysaan xol sedd na ñëpp a dajaloo yëkkati nañ foto ba Ndeysaan gis nga séeréer ya toj na toj na ndeysaan waaw waaw